asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal euh, ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara leen jox seen wàccuwaay di leen masto bu baax ci euh, coono yi nga xam ne Sénégal yi dund nañ ko ci jamono yi muy coono yu metti ak euh, ci wàllu seen sooxeeg économie ci ñëpp ndax lu toll ne am réew buñ demee ba. ku bëgg liggéey do liggéey ni ko bëggé ku bax ku bëgg dox sa yité do ko dox ni ko bëggé lool rek dafa doy sëkk ay coono ak jafé jafe wulis lanen la lenn sababu ko lool ay nit ñu bëgg nguur ba dem ba fàtte seenu askan ngir seen intérêt bop mu nekk lu metti lu tar te kenn amul foko joy ma leen wax ne euh, gis nga aduna lepp lo gis day jeex lu banex ba reey reey reey maanaam day jeex lu dul jeex ci àdduna amut kon nag nit ki doomu aadama bi war nay sooraale lii xew ci ginnaawam lépp doonte fii mu nekk dana toll ci guddi yoo xam ne boo ko yàlla dimbaliwul dëgg dëgg dëgg day yaakaar ni lii mu nekk du ci mës a jóg te am na ñeneen ñoo xam ne ñoo leen ëppoon kàttan ëpp leen i pexi ëpp leen lépp te kenn déggatu leen ci seen mujj tamit dara baaxatu ci kon nañu bàyyi xel loolu te yërëm askan wi surtout nag mbir moo xam ne jeex na ba noppi mujj moom dafa war a rafet waaye wërta ñaaw année yii ñu toll nag ku ci judd ko nekk sa date de naissance moom incha allah taala kenn dootu ko fàtte xam nga bu njëkk nit ñi dañ daa judd ñu atum ngelaw la atum njéeréer ya ak atum nangami waaye at mii atum tëjub connexion atum jàpp ay nit ñu deful dara di leen tëj ci ay kaso maanaam Sénégal mel na dëkk boo xam ne dañ koo jënd ci xaalis kenn nit moom ko mu dem ba. ñi nga xam ne ñoo fi dëkk juddoo fi yeroo fi bëggatuñ fee nekk ci am réew moo xam ne réew mu waroon a neex la réew mu waroon a am jàmm la loolu lu ko gën a deltu ginnaaw ci am réew amut ku ne xam na ne senegal ku waxal yàlla xam ne deltu na ginnaaw ci yu bare bare bare bare yoo xam ne kenn mësu koo xalaat si Lamine nag waxoon na ko ba waatoon ko waatoon na ko xamoon na lii xew ci réew mi lépp yàlla na ko yàlla yërëm waxoon na ko ba mu koy wax kenn bàyyi ko xel waaye amoon gis la waatoon na xamoon na ne alkane ju rëy mi ñuy xaar te li ko waral mooy ay njiit yoo xam ne dañ fee nekk maanaam fàtte seen fàtte seenu askan fàttali leen faloom tegalaat ñu fi ay nit ñoo xam ne tamit xamuñu réalité réew mi xamuñu ni yërëmi doomu aadama parce que kenn mus see dund coono gis nga ab coono bu ko nit ki xamul bu koy teg doomu aadama du yëg ni mi ngi ko koy teg faaw nit ki jaar ci ay coono doog a xam ni muy def nit ki ba xam lii metti na wala méttiwul wallaahi wal kàmbati Macky Sall bu tëddoon kaso ñaari fan. yu ci bëree bëri yi muy def du ko def waaye nag mosu ko mosu faa dem xamu ko xamu ko mais ña fa jaar xam la fa nekk bu nee ndiw jàpp nañ ko seen àdduna jëpp day tukki nit ki nga tëj ci këram dong xañ ko liberté rek fitna la rawat na nga dugal ko foo xam ne maanaam daanaka nekkut foo xam ne doomu aadama sax war na faa nekk moo tax doomu aadama lu mu xamul bu koy teg doomu aadama du metti ci moom ak doomu aadama ni mu foore rawatina nag aw askan woo xam ne genn wàll ga amuñu doole nga ñëw yokk leen maanam ak ñëw doole loolu lépp di ay mbir yoo xam ne gàllu na ci kaw su askan wi te amuñ ci benn pexe kilifay diine yi ñu ci doon yaakaar ak ñëpp ne cel mel na ku nekku ci réewum Sénégal moo tax jooy nañ sut mag ña fi nekkoon ci daa dox ci réew mi jàmm ba ñëpp respecté leen ba luñ wax nit ñi def ko waaye nag doomu aadama ba fii ak mi ngi jiital intérêt personnel am li naan ko ëmb sa sànqal ëmb sa kers da ngay dem ba boo waxatee kenn la faale boo waxatee kenn du la diglu ndax ña ngay faral day am fun lay jaarale foo xam ne amoo sañ-sañ wax leen ak dëgg dëgg nag bu ñu demee ba kenn ñi meetu ko wax fàtte yàlla mi ko santaane topp ay nit di topp ca la ñuy wax di def la ñuy wax ngir ay intérêt poste yoo xam ne dara du ci sax balaa ëllëg ñu takkal ba nga ne ñu duñu dugal ci biir suuf si nga jàmmaar la koo xam ne lépp loo defoon ci àdduna dana la ko tegalaa sa kanam nga mën koo jëndee ki nekk ci àdduna di faatu comme yow li mu amit ki koy jox du faatu du fi jóg nga mën ko fa ne ñukk topp lépp lu ciy mën di xew ëllëg yomal xiyaam maanaam na nga ko muñ te xam ne yaa ko liggéeyoon man xamila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha metti na lool metti na trop foo ko takk weesu na ko gars yi ñu ngi fërtu fërtu mel ni koo xam ne danoo jënd réew mi fi mu nekk nii dem ba doo am yi man yàlla mi ma tiim xam na ne lenn lu ñuy wax lu jëm Sénégal lu may convaincre wala dara amatut ma sama bopp ci dara te dal na ma dal keneen dal keneen dal ba ci télé yi nga xam ne sax ñoo nekk ci réew mi ñu dem ba yàq leen ba kenn ñi mettu cee wax farfarloo boo xam ne la boo ci jàpp la neex ñi fi nekk rek lay wax kenn mënatut am information bu leer yëf yëpp jaxasoo lépp jaxasoo ngir ay intérêt àdduna fàtte seen bopp ci anal di lu mu bari bari day jeex du dara kon loolu nañ ci bàyyi xel ñi ngi masawu ñëpp ñëpp ñëpp coono yi finn yi mett na tartar yi mett na waaye yàlla yàlla dimbale defal ñu ay xéewal te musiba yeeg yëpp sun borom tàqali ñu ak moom te defal ñu loo xam ne danañu fàttaloo coono yeeg jafe-jafe yi yëpp ba kenn ku nekk delluwaat ci sa sago ni ko bëggee woon yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke bu alxuraanul karim ñi doon yaakaar nag ñëpp tax nañ suñu yaakaar kilifa yoo xam ne du dégg dara bu dugal seen kàddu wala kàddu gu ñu mën di wax kàddu farfarloo rek lay doon te war a dimbale askan wi moo tax bu ñu waxee toujours man bu nit ñi waxee rek la ma leen jot a wax mooy. بوك ما تلي يقري مولي تي باري باري نيني واخ اي كليفه دينا تي لا بوك سامي فامي ييب تي لا بوك واي دغ لا يالا بغ والله الحسيب برنا تي لو خامني لو باري باري نيو خياخ باسكو دو نو باي باي ني في نيك باي باي لين تي نيك اي نيت ньо خامني امول لين لوم تيكي وون تي ريوم سنغال خي ني جوخ لين ريو مي ني ديف لو لين نيه ني فارد لين تي ني تابو لين تي اكام نيوم نيب سور لين ماسر لين ba kenn amatul foo jooytoo kenn amatul ku lay waxal dëgg kenn amatul koo xam ne soo waxatee nit ñi def ko loolu lépp seen responsabilité bu mag te kullukum raaxin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi ñoom ñëpp ëllëg yoo moo xam yàlla dañ leen taxawal ci kanamam laaj leen ndax kenn ku ne responsable nga ci réew mi kenn ku ne am nga ci mbooloo am nga ci njaboot kenn ñemetut a wax dëgg kenn doxatut ngir yërmaande kenn doxatut ngir dara ñoom ñëpp du yor nañ leen seen i poste ba mu fees jàll ñu ne cell bu nu waxee ñaan kilifa yaa ngi wax kenn waxut kenn kenn waxut ñoom ñëpp dañ leen a kidnappé xam nañ li xew ñu dofuñ ñu ñëpp a xam li xew ci àdduna kenn mu nelawutul ñëpp a yeew kon ñi ñi ñi ngi masawu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tawfeex barke bu alxuraan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi